cent maanaam euh, téeméer boo jël juróom fukk ngir waxtaanee waat loola ak njeextal yi mu amoon euh, surtout ci koom-koomu réew mi ak euh, mu Afrique danañ ci dalal tey professeur Ousmane Beye di ko xelam màcc wàllu koom-koom mu di ko jàngale waaye itam mu bokk ci parti socialiste nga xam ne jamono jooju moo nekkoon ci nguur gi fii ci Sénégal professeur ñu ngi lay nuyu dalal ak jàmm ci dem ak tey Mm-hmm. alors ñu bàyyi la nga présenté wu bu baax ak sunu auditeurs yi ñu xam ah. dëgg-dëgg kan mooy professeur Ousmane Beye. man maay professeur Serigne Ousmane Beye. Mm-hmm. damay jàngale comme université. ba pare damay politique parce que responsable parti socialiste là. Mm-hmm. je suis membre du SEM. secrétaire national chargé des études et de la prospective. président de la commission scientifique du parti. alors professeur ñu ngi lay gërëm bu baax am mbégte dalal la ci euh, waxtaan wi démb ak tey euh, ni ma ko junjee sànq dévaluation CFA bi amoon atum 1994 moom la ñuy waxtaanee est-ce que mën nga ñu ñëwaat ñëwaatal si contexte bi ñu defee woon boobu dévaluation. waaw dévaluation bi metti woon na trop ci jamono yi parce que xam nga xaalis bi dañ ko bokk ak euh, ñetti réew. mu ci waa UEMOA te boobu saa sax foog naa ne yàkkuloon juróom-ñetti réew juróom-ñaari réew la woon doon parce que foog naa ne Guinée Bissau bokkuñu euh, donc euh, chef d'état yi sax président yi seqoon UEMOA euh, ñu ci bëri d'accord ñu mais am na ñoo xam ne d'accord nañu comme mel ni waa Côte d'Ivoire ñoom d'accord nañu pour ñu dévaluer parce que dafay yombal seen jaay bitim réew Sénégal ak Diouf d'accord loolu parce que xam nga ñun Sénégal gerte rek dañu amoon lu ñu mënoon jaay bitim réew mm-hmm. te gerte gi tax ko woon demee noonu donc coow amoon na coow li am ñoom fanaan nañu sax Dakar sax la. Hmm. pour di jéem a convaincre ak euh, ku ñuy wax Roussan benn ministre français bu fi nekkoon jéem a convaincre président yi pour ñu euh, jéem a dévaluer sax gannaaw gi dévaluer tax naa sax bu ñu président africain yi waxuloon dara doon nañu dévaluer sax lu ëpp cinquante pour cent. Hmm. waaw dañu wàññeeku. dëgër bañ ñu dévaluer cinquante pour cent. d' accord xanaa ñu ubbi prox ndool pour ñi xamul nga wax leen lan mooy dévaluation. ci wàllu koom mooy ñu wàññi valeur xaalis bi. Hmm. par fekk xaalis bi par exemple yaa ngi ko wéer ci bu njëkk ba par exemple euh, franc français. Hmm. par exemple un franc français da nga ko naan wax cinquante français cent Mhm. donc sa sa xaalis day dem ba day néew doole. d'accord donc téeméer boo jël sa xaalis dina ci néew doole ci juróom fukki yi. Hmm. donc xam nga kooku dafay doy waar. waaw day doy day doy sa économie am na ñoo xam ne mun na leen dimbali bu fekkee ne am nañu ay matières ñuy jaay mu neex a jaay bitim réew mais am na ñoo xam ne bu ñu amul dafay day ci ñoom. Hmm. Euh, donc dafay leen xam moo tax sa jamono yi man bindoon naa ci soleil. Mhm. pour le consommer sénégalais pour nit ñi di bañ ti ci euh, jéggaane bi réew mais ñu jënd li nga xam dana tax ba vraiment danañ mën a dooleel suñu suñu xaalis amatul doole. Mhm. Euh, léegi lan moo indi woon ñu def dévaluation si atum 1994. waaw dévaluation na xam nga xaalis moom ci économie dafa war a méngoo ak fii sa économie tolloo. Mhm. du dëgg. waaw mais bu fekkee ne sa xaalis dafa dem ba ëpp doole sa économie kooku normal wul. kon looloo xewoon 94. loolu loolu moo xewoon. ko te man sax loolu d' accord naa ci mais man dama ne woon dévaluation bi bu fekkoon ne ci sur sur le plan technique mën nañ ko def ba nga xam ne dëkk bu ci nekk dañ lay wax yow 30 pour cent lañ lay dévaluer yow 20 pour cent yow 50 pour cent yow nangat nanga parce que économie yi. du benn yemuñu yemuñu woon benn. xam nga ko day xaw a pour yombal ko rek ñu ne def ñëpp cinquante pour cent. d'accord donc euh, ci économie bu demee ba nga xam ne sa xaalis da koy ëpp doole sa xaalis day fort trop. Hmm. kooku day tax sa économie du du mun dem parce que nit boo amee euh, monnaie xaalis nga utiliser foog sa économie am doole foog nga liggéey fa foog nañu liggéey pour sa économie mën a ak sa xaalis bi ngay jëfandikoo loolu moo tax toujours man saa bu ñuy ne. mais nañu di liggéey parce que aussi wax ji day xaw a bari toujours au Sénégal. Hmm. wax ji moo bari ci politique balaa ngay politique sax kenn dàqu ko mais balaa ngay wax nga uti li nga xam ne moom ngay lekk moom nga yóbbu sa kër nga liggéey pour sa réew jëm kanam pour sa koom gën a dëgër bu boobaa après da nga mën wax affaire politique mais bu wax ji dafa bari ba nga xam ne nit ñi ñoo politique bi la ñu gën a kii quoi. d'accord kon professeur su ma la déggee kon 94 euh, Sénégal dafa soxla woon dëgg-dëgg d'évaluation Euh, dañuy dégg tey ñu bari di ka ŋàññ mais yow ni nga waxee dafa mel ni. dañ non non dama ne dëkk bu uh-huh. mel ni Côte d'Ivoire. waaw soxla woon na dévaluation. ok mais dëkk bu benn ni Sénégal bëggu ko woon. d'accord parce que suñu suñu koom dafa xawoon suux. suñu économie dafa xawoon suuf boo boo ci boole loolu. d'accord dañuy a dogali. waaw moo tax Abdou Diouf d'accord ci woon sax. surtout ko ñun gerte rek la ñu amoon ci yooyu jamono. Mm-hmm. ak phosphate xëy na pour mën ko jaay bi bitim réew. te xëy na ñu ñu ko daan soxla bariwul comme tey ni chinois ay soxla gerte gi. Mhm. xam nga te Côte d'Ivoire ñoom dañu amoon ay matières yu bari yoo xam ne mënoon nañ ko jaay bitim réew. donc bu xaalis bi wàññee bu doole xaalis bi wàññee ko day tax ñu gën a mën a jaay bitim réew. loolu loolu wa Côte d'Ivoire mënoon nañ ko mais Sénégal moom. Euh, donc donc Abdou Diouf d'accord ci yoon mais ñaar loxoom mu mu soog ci d'accord. parce que offert xaw offert loon xaw ko xaw Canada la encore. Mhm. dafa daakaaroon te moom dëkk la boo xam ne moo ëppoon doole ci UEMOA. donc bu ànd ak wax kon foog li ñu wax day nekk. day nekk mhm. léegi booba temps sénégalais yi naka la ñu jëlee boobu décision euh, ndax euh, xam naa ne déjà ñu bëri comprendre ñu ci woon euh, lu lu demee noonu. ci ci dévaluation bi. ko jëlee sax parce que fii la ñu réunir fii Dakar fële nu mu tudd Méridien d'accord. ak chef d'état yi ak euh, ministre boobu ma lay wax Roussin. Mm-hmm. monsieur Croix moo doon chargé de la coopération. fii la ñu fanaan fii la ñu toog wax ba gannaaw gi ñu convaincre convaincre convaincre ba ñu daag mais loolu day wane rek que France moom dañuy wax lu la neex na mais ñoom seen intérêt mooy ñu. am euh, lu ñu téye ci CFA bi parce que seen seen intérêt ci Afrique dafa bari. Mm-hmm. ba nga xam ne surtout surtout Afrique UEMOA ba nga xam ne ñoom ñu contrôler suñu suñu monnaie bi daf leen intéressé trop moo tax xale yi wax naan war nañ ci génn. d' accord la ak ñoom mais xëy na ni ñu ciy génnee façon bi ñu ciy génnee rek laa laa d' accord la ñoom. Hmm. dinañ ci ñëw ak écho bi nga xam ne ñu ngi koy annoncé mais ci ci ci dévaluation wu 94 boobu ba léegi lan moo ci nekkoon intérêt France parce que wax nga ne sànq mu mel ni Côte d'Ivoire soxla woon na ko ndax euh, économie wam euh, moo yitte woo woon ñu wàññi doole xaalis bu ko defee mu gën a mun a jaay mais France moom mi nga xam ne daanaka moo géré loolu yëpp lan moo ci nekkoon intérêt am. waaw France moom moo garantir suñu France. moo garanti suñu franc CFA te France aussi seen intérêt homme d'affaires yi entrepreneur yi nekk fii aussi foog ñu seet ko xaalis bi bu fekkee ne xëy na parce que jamono yooyu sax pour wax na ne am na nit ñoo xam ne parce que dévaluation boo koy def warul jëm kaw parce que xaalis bëggul coow am na ñoo xam ne bi ñu déggee ne dévaluation dana am dañu génne par exemple nit mun na génne par exemple Euh, dix millions yóbbu ko bitim réew ba dévaluation bi passé bu minuit passé ba dévaluation ñu delloo si ko mu nekk vingt millions. waaw mhm. ah, yooyu yooyu yëpp amoon na fi déggoon nañ ko fi te France ñoom suñu xaalis na sax ak yooyu moo leen gën intéressé mais l' essentiel pour ñoom na stable rek. Mhm. wala soit loolu. d'accord lan la ñu diggoon Sénégal ba mën a convaincre président Abdou Diouf euh, à l'époque ngir mu euh, nangu finalement d'évaluation. waaw mais mais xam nga xam nga xam nga dañu nekkoon ci zone UEMOA. Uh-huh. Union monétaire uh-huh. sax union économique bi. Uh-huh. bokkul ko. UEMOA bi moo ñu tax ñu bokk euh, xaalis bi ak banque centrale ak yooyu. mais Côte d'Ivoire moo ci ëpp doole. presque mën nañu wax ne ci téeméeru kom koomu UEMOA boo jël. Mhm. xëy na bon wàllu Côte d'Ivoire am nañ ci am ëpp na cinq pour cent yooyu xam nga xam nga kooku day am doole. Mhm. ci boobu kii ba pare France ñooñu coloniser am na yu bari yoo xam ne ay pression yoo xam ne mën nañ ko def sur le plan économique sur le plan monétaire. Mhm. sur le plan militaire. xam nga ci surtout ci jamono yooyu. ci surtout jamono yoo xam ne. boo déggalul France bu waxee te déggalul ko sax mën nga daaneel. Mhm. waaw kooku moom yéen xëy na euh, fàttewul mais fii di France def ci ay coup d'état kenn xam mu toll. Ah am na président yu bëri yoo xam ne dañu wax affaire CFA rek ñu daaneel leen. fii ci Afrique. commencé par Togo. Mhm. Togo c'est le premier président. affaire franc dafa ne day day monnaie monnaie ñu daaneel ko euh, Modibo Keïta defoon na ko fi ñu daaneel ko. parce que Mali génnoon na CFA ba dellu soit CFA après plus tard bi Modibo gaañoo bac boobu fi jun gis nga mooy wane ne dañuy wax rek ah dinaa la waaye ñun suñu yoon nekku ci seen xaalis la mais ñoom seen intérêt ñu contrôler CFA. Hmm. kon euh, CFA bi dafa mel ni euh, dafa mel ni lu ñu sas Afrique te France di ci gis boppam bu baax a baax. mais c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. waaw loolu loolu mooy CFA mooy CFA waaw. après lañ ko mujjee changé rek pour jéem a rafetal. Mhm. Ah, franc de la communauté euh, financière africaine. Mhm. franc de la coopération financière africaine pour ñaari gox yi. Mhm. Afrique centrale ak Afrique de l'Ouest. système bi dara changé wu ci. dara changé wu ci. dara changé ñoom ñoo ñu imprimer suñu billets yi. chamalière lañ koy defare ak xaw ma beneen dëkk ñoom euh, suñu réserve yi ñoo koy garde ci seen bon trésor français mm-hmm. ah, waa nga xam ne kon dara changé d' accord dinañu ñëwaat euh, ci euh, CFA bi ak coppite yiñ ci wax léegi bi ñu dévaluer 94 lan moo mm-hmm. nekkoon njeexital yu njëkk conséquence yi ci koom-koomu Sénégal nan la ko nit ñi yégee jamono yooyu. bon nag métti na mais wax dëgg yàlla taxoon na suñu économie gën a noyewaat gën a jógaat parce que léegi comme que suñu xaalis amatul doole doon nañu mën a gën a jaay bitim réew. exportation quoi. d'accord waaw mais metti na ci njëlbeen nga mais mm-hmm. après moo tax sax xëy na ñu defaraat suñu koom ba les feux comme on dit les feux étaient verts. Mm-hmm. et cetera ba ñu dem ba deux mille Abdoulaye Wade ñoo ne voilà amatul benn problème. Mm-hmm. li fi baax ma bay na fi xaalis économie bi redressé nañ ko nangam nangam. waaw mais ça il fallait de la rigueur. dans la gestion des politiques hmm. te loolu amoon na euh, jamono yooya. Ah, ah amoon na jamono jamono Abdou Diouf hmm. d' accord kon évaluation bi am na benn côté bu baax ci Sénégal. waaw waaw koom-koom si ah, ci gannaaw gi waaw. d' accord accord hmm. léegi ñu ñëw ci CFA bi professeur euh, Beye yaa ngi koy wax sànq euh, France bu ma la déggee moo ci gën a gis boppam que réew yi Afrique yi génn ci franc CFA tey solution la. xam nga nga am sa indépendance monétaire hmm. lu am solo la parce que am na ay leviers yu bari sur le plan économique comme comme yow nga bëgg dévaluer sa sa monnaie wala nga bëgg def la ñuy wax place yooyu yëpp boo amul indépendance monétaire donc ko mën a def hmm. doo mën a appuyer ci yenn leviers yi ba pare ñun fii nous avons sur le plan de l'UEMOA deux façons d'autorité il y a les autorités monétaires mooy waa banque centrale ak les autorités politiques mais autorité politique bi nag du benn chef d'état rek ay chef d'état yu bari la xam nga. Mm-hmm. donc même bu ñu amee suñu mën a bopp dana difficile trop pour ñu gérer ko te surtout que suñu dëkk yi du dëkk yoo xam ne am na ay démocratie parce que aussi démocratie bi aussi def ci am solo mais dëkk boo xam ne dictateur moo koy gérer mën nga jékki-jékki sax mu xëy bis mer. ne day génn ci éco bi wala moom dañuy politique bi ñu tëral bëgg ko nangam xam nga di xëcc di xëccoo ak yooyu ñii di xëcc fii ñii di xëcc fële donc euh, indépendance bi moo tax ko mel ni euh, kii euh, Samba Sylla ndongo Samba Sylla mhm. moom bëgg na sax ñu génn ci franc CFA. Mhm. mais moom dafa dem pour wax ne ne Sénégal sax dafa war a boppam xam nga donc gis-gis yi wute na. nit ñi bu ñu d'accord sax ne waratuñu bokk ci CFA bi am na ñoo xam ne nee nañu nañ ci génn pour defar suñu monnaie commune am na ñoo xam ne dañ ne dañ ci génn pour defar suñu monnaie nationale. Mhm. waaw. ce que loolu mën naa nekk ci sa xalaat. pour monnaie nationale. waaw. ah ça dépend rek ci façon bi ñuy gérer économie bi parce que tant que sa économie yaa ngi koy gérer euh, de façon responsable de façon rigoureuse. gérer bu mu ci ay euh, kooku mën nga am sa sa sa mën parce que am na dëkk yoo xam ne ñu ngi am ay Ghana ngi nii euh, Nigéria. Mauritanie même Gambie am na mën a. du dëgg. Mhm. waaw ni noonu sa question mhm. euh, mhm. bi ñuy annoncé yaakaar nga mu am coppite gi tax ñuy wax ak CFA bi ñu bëri jàpp nañu ne li fi ne woon rek moo fi ne. mais écho bi dafa bett ñëpp sax man man man man dama parce que ñu ngi doon wax écho ñëpp am ci yakaar ñu ne dañ ci dem ak Ghana ak ak Nigéria ak dëkku anglophonie ak Guinée ak Gambie ak Sierra Leone ak Libéria France jékki-jékki ak ak gis nga li mu la rawat ci France ak Alassane Ouattara jóg taxaw ne éco bi dinañ ko def tel jour te buñ koy def ñi ci jëkk a dugg mooy waa UEMOA ñi ci des après mën nañu pare ñu dugg est-ce que France waroon na taxaw di du wax loolu. est-ce que Mitterrand euh, euh, kii ku Macron est-ce que euh, est-ce que yoonam a ngi ci boobu taxaw wax loolu. nga xam ne kon li ma la ci njëlbeen nga dëgg la. ndax da dañ ci gis seen intérêt. te Ouattara moom <laughs> bon gis nga ren di ñaa ngi ne France fi nekkal ko. voilà mu ngi noonu. d'accord alors bi daal yoon bi mu jël moom. Mhm. dalu daal dalu yoon ba ñu jëkkoon wax nag ca njëlbeen nga nag. Mhm. pour vraiment ñun ñu gérer ko suñu bopp. yoonu France nekku ci. ñu boole ci Nigéria boole ci Libéria Sierra Leone Guinée Gambie ak Ghana je crois que loolu moo gënoon dëgg hmm. waaw mais réew mu mel ni Nigéria tam ku nekk xam na ne am na doole lool ci ci Afrique est-ce que dugg ci ECO bi tey arrangé na ko. non ñoom bëgg nañ ko sax. Hmm. mais ñoom xëy na dañuy poser ay euh, conditions. Ah. des des préalables ñun ñun tamit hmm. suñu gox bi UEMOA. je crois que bu ñu boolee dinañ nekk doole dinañ am doole. Mhm. face à Nigéria loo gis rek ay négociation la. loo gis loo gis ay négociation. Mhm. parce que UEMOA bu bu ñu demee par benn benn pays xëy na Nigéria mën nañu noot mais bu ñu nekkee benn dànk dem jàkkaarloo Nigéria xëy na euh, waxtaan bi dina gën a neex. Mhm. d'accord. professeur Ousmane Beye bu parti socialiste la ñuy dalal mu di itam économie suñuy waxtaanee surtout l'évaluation euh, bu 94 euh, alors professeur ñu ñëwaat ci boobu xew-xew Euh, yaakaar naa ni France itam ci la daal di imposer sax buñ ko munee waxee noonu ay euh, réformes structurelles euh, réew Afrique yi ndax tamit am na condition yu bari daal yoo xam ne tegoon na ko ci kaw yooyu la réew ngir ñu dévaluer mais tamit ngir ñu doxee ni ni mu ko buggee moom ak li ñu naan les institutions de Bretton Woods Banque mondiale FMI ak yooyu est-ce que nga ñu ñëwaatal ci épisode yooyu loolu moom dëgg la surtout que sax Fonds monétaire et Banque ci jamono yooyu xëy na sax ñoom ñoroon pousse France xëy na pour ne pour ne ren pour ne ko na comme que am na ci ñun influence. Mm-hmm. nañu ñaax ñu def dévaluation parce que gis nañu ne suñu koom demuloon te jamono yi nag dafa metti woon. Mm-hmm. jamono yi ñu ngi soog a jógee ci sécheresse bu méttee métti soixante dix ba quatre vingt cinq jëm quatre vingt dix ah, euh, sax ci diggante bi dem na xam nga ndax méttaayu métti méttiwaayu koom bi. Mm-hmm. Abdou Diouf ñëw nekk administrateur. ñu ak technicien ñu yaakaar ne war na mën a góorgóorlu pour redresser metti woon na donc euh, moo tax ñu dévaluer. est-ce que tamit euh, France euh, tamit ci wàll boppa ak yeneen kii sax bëgguñu woon décharger wu un ndax jamono yooyu ni nga ko waxee dafa metti woon ñu meloon ni ñu wékku ci seen kaw ndax itam ndimbal lu bari dañ ko doon yittewoo. te pratiquement amuñu woon beneen pexe lu dul dimbale ñu aussi. Ah, waaw ñoom am nañu quand même dimbal bu ñu daan def France France moom daf ñuy Euh, suñu réserve yooyu ñu bàyyi foofu ci trésor français daanañ ko sax jël pour parce que bu fekkee ne dëkk bi dafa nekk déficitaire dëkk bële li muy am ci excédentaire ñu yóbbu ko ci dëkk bële pour mun ko dimbale et cetera xam nga. Mm-hmm. loolu la France daan defale institution de Bretton Woods yi aussi daan ñu jox xaalis mais danañu sax ba yaakaar ne xëy na ñu booy leen di compter di jox xaalis dootuñu fay. Mm-hmm. te nag dévaluation aussi il faut nu ñu comprendre benn affaire. c'est un instrument de politique économique duñu wax dévaluation rek ñu ñu ne baaxul. Mhm. am na fu am na tamit fu mu baaxee am na ñoo xam ne dañuy def exprès. Mhm. ñi nga xam ne sax dañu am seen indépendance monétaire dévaluer xaalis. Mhm. moom la américains yi di xuloo ak chinois ci yuan. parce que chinois yi dañuy def toujours seen xaalis gën a euh, néew doole dollar pour ñuy gën a mën a exporter. seen seen ay koom euh, seen ay matières te jënd lu jógee Amérique day xaw a jafe ndax nit ñi dollar bi cher par rapport ak yuan bi xam nga. Mm-hmm, mm-hmm. pour montrer pour dire que dévaluation du ñu wax dévaluation ñu ñu ne baaxul yenn saa am na foo baaxee am na ñoo xam ne ñoo koy def exprès sax pour de pour dévaluer. Mm-hmm. pour seen xaalis mën a gën a. néew doole bitim réew pour nga mën a exporter wàññi importation yi. kon yooyu lu ñuy def la. Euh, mhm. léegi fii ci Afrique tamit nag euh, ci nit ñi amoon ay conséquences yoo xam ni yu particulière la euh, si si ñi nga xam ne peut être dañu amoon xaalis ak même pouvoir d'achat bi également dévariation bi amoon na ci njarital bu baax a baax. waaw waaw bien sûr pouvoir d'achat bi kañ ko ko moom kenn waxtu ko parce que ku doon fayeku par exemple cent mille francs. Mhm. léegi sa cent mille franc yooyu valeur cinquante mille franc. cinquante mille lay am waaw. xam mhm. ah, defee nag kooku xam nga dana métti trop foofu dana métti. Mhm. essence bi aussi gannaaw bi day yokku transport bi day yokku xam nga loolu. Mhm. Ah, parce que euh, xaalis bi amatul valeur. amatul valeur à donc euh, euh, les coûts étaient élevés. Ah, les coûts étaient or que le pouvoir d'achat avait baissé. kooku tamit effectivement day am impact. ci mhm. pouvoir d'achat alors ñaar fukki at ak juróom pratiquement ginnaaw euh, loolu euh, wala wala ñaar fukk ak ñaar euh, ñu ngi doon waxtaanee dévaluation jamono yële ñu weesu africain yi mel ni mbir mi daal dafa nekkoon genre traumatisme si ñoom boo xam ni bàyyeegu leen woon ba léegi est-ce que da nga gisoon jamono yi ñu weesu contexte boo xam ni jaroon nañuy tiit dévaluation temps yi ministre amado Ba nekkee au niveau de l'économie des finance ñu ngi ko daan ruumandaat ñuy wax ne la xewoon 94 dafa mel ni moo ñuy yootaat est-ce que gisoon nga boobu contexte jamono yooyu. mais man séntu ma ko woon parce que y avait une bonne tenue des économies. Hmm. Euh, comme bi ñu ko doon euh, vraiment euh, doxal nu mu waxee. donc gisuma woon donc njëriñu dévaluation ak nu mu mënee tuuti tuuti gisuma ko woon. Hmm. parce que y avait une bonne tenue des économies de tous les états d'ailleurs. Hmm. parce que on était à des taux de croissance de moyenne des des taux moyens au niveau de l'UEMOA. de 3 4 pour cent que Sénégal sax demoon na ba 5 6 pour cent ah donc euh, je pense que waruñu woon wax variation. Hmm. alors tey dafa mel nii nag économie Afrique ci boppam euh, professeur Beye moo am jafe-jafe euh, mbas mi ñëw yokk ko muy contexte boo xam ne bu difficile la euh, ba ñuy sax wax ni dette bi maanaam bor yi nga xam ne réewi Afrique dañu ko amee dañu ko war a fomp ngir dimbali leen koom-koom yi mën a jogaat pratiquement fépp la ci àdduna bi mais Afrique quand même dañ cee euh, xaw a sonn lool lott euh, ci mbas mi nga xam ne moo dal ci kaw koom-koom yi tey boo koy jàngat lan mooy jafe-jafe wu koom-koomu Afrique euh, bu Sénégal particulièrement waaw li nga wax dëgg la li nga wax exactement moom laa wax ci rajo yi ak ci yeneen kii télévision yi parce que euh, mbas mi bàyyi bàyyiwul benn dëkk yàq-yàq mm-hmm. yi muy yàq ci seen dëkk yi sax xëy boo demee France ñu ngi bëgg xeex sax ci mbedd yi dinaan dañuy kenn boo demee fanaan ak fanaan pour montrer que wax naa ko keroog ci benn télévision pour montrer que économie dafa fragile mm-hmm. même économie dëkk yu mag sax marsamaak dëkk yi nga xam ne ñun économie informelle la ñu am. Mhm. xam nga nous ne sommes pas structurés dañuy xëy di dem di ñëw di indi bu ñu génn rek duñu mën a yóbbu dara suñu kër xam nga ko nekk confiné ko wala ay couvre-feu wala nangam-nangam te day metti mhm. donc yàq na lu bari. li muy gën a yàq fii nag mooy taawu confinement bi ak taawu bi ne kenn du dem région ak région. Mhm. ba pare def couvre-feu loolu yàq na lu baree bari dama lay jox benn exemple. exemple terre am na benn xale bu ma xamoon bu amoon euh, Sacré Cœur salle de billard xam nga xale yi weer nañ bëgg. Mm-hmm. salle de billard bi amoon na quatre tables ou cinq tables xale góor yi ci kañ lañ fay ñëw di naan seen jus de fruits jënd seen sandwich seen jeu billard ba ay booru minuit mais bi ñu tëjee te xam naa ne amoon na lu mat trois ou quatre employés mais bi ñu tëjee dafa mujjee tëj parce que xam nga dootu amati lu mu location bi ñaari du du du ndagum sax xëy na man xëy na sax moo ko moom mais même euh, kii bi local bi dootu ko mu rafet boo tëjee quatre mois local cinq mois kooku day day métti ci moom. Mm-hmm. te xam naa ne ñoom kenn jëlu leen en compte ci dañuy dimbali nit ñi parce que xëy na euh, métier yu solo yoo xam ne ñu sax da leen di fàtte leen saay kooku mm-hmm. nag boo ko multiplier par cent multiplier ko par mille. Mm-hmm. nga nga gis nga joxe. waaw parce économie euh, mhm. accord alors économie yu Afrique yi itam euh, professeur dañuy wax ne euh, bu weesoo jafe-jafe yi nga xamante ni moom nga tudd léegi am na yeneen jafe-jafe yoo xam ne daanaka gis naa ci sax ay jàngat yu ni lépp luy lu baax conséquence positive boo xam ne dévaluation bi indi woon na ko loolaa ko yàq bi ci njëkk mooy corruption ger gi ban njeexital la am ci koom-koomu koom-koomu Sénégal waaw. xam nga xam nga sànq ba léegi maa dem il faut une bonne une bonne gouvernance effectivement des politiques publiques. Mm-hmm. kooku moom boo ko defulee rek da ngay daan. Mm-hmm. te Afrique loolu moo ko yàq. guerre bi yàq na ko évasion fiscale bi yàq na ko. Mm-hmm. Euh, euh, comment dirais dérogation yi yàq na ko yu bëri bëri yàq na ko. Euh, donc voilà il faut que ñu am rigueur ci ni ñuy téye suñu. suñu économie. Mhm. suñu euh, politique ak yooyu. Mhm. tant amuñu ko rek duñu dem. Mhm. alors bu weesoo guerre gi di corruption euh, xeex yi itam ñàkk stabilité ci yenn réew yi dafa tardeel économie Afrique euh, yu bëree bëri. loolu kañ yàq na loo xam ne sax ragal naa ne. pour ñu dabuwaat ko dana métti trop comme mbas mi mbas bi sax am na ñoo mhm. pour ñu dabu ko yàq yi muy yàq dañ ko dabu fekk fukki at. Mhm. mais xeex yi ak déstabilisation ak guerre yi ñoom kooku mën na sax pour nga dabu ko ay vingt ans. Mhm. moo tax Sénégal mi ngi góorgóorlu pour aar boppam. jafe na nag boo nekkee ci biir boo xam ne ñëpp a ngi geeral si. waaw ah, ah kenn ñaanu ko mais euh, mën na am sax mu mu mu la. mais boobu rek ñu ngi góorgóorlu. mais pour dellu si ci li nga doon wax ci affaire bor bi. Mhm. bor bi lu dëgg la kooku dañu war a ñaan ñu annulé ko ñu ñu effacé ko. Mhm. parce que relation yi ñu am ci ci ci sur le plan économique. Mhm. ñun pays yu néew yu doole yi ak pays yu mag yi ah amul équilibre. amul équilibre toujours ci suñu relation ay naxante mbay la ko comme mag bu tee xale rek di ko nax ci suñuy ay transaction li ñuy jëndee suñu matière première yi dañu jëndax ba ñu ñëwee euh, euh, transformé ko delloo suñu ko loolu dañu doon wax l'échange inégal. Mhm. professeur Matar Diouf sama daa nga wax la détérioration des termes de l'échange xam nga yooyu aussi. Mhm. vraiment buñ ci euh, delloo gannaaw ba xool foofu fu ñu jaar yëpp ñu xam ne ñii am nañu lu ñu ameel. Mhm. am ci suñu koom ñoo yàq suñu koom. benn benn ñaar suñu demee bu fa gën a sori ci ginnaaw te wax naa ko tamit. esclavage bi ak colonisation na. yàq boo xam dafa tardé l'Afrique lu bari. waroon nañu sax je crois que dédommage. Mhm. ah kon dañu mhm. donc yooyu yëpp bokk nañ ci yàq yoo xam ne ah góorgóorlu bu ñu mënti def yooyu foog mu topp ñu aussi. Mhm. foog foog mu topp ñu. alors am na tamit phénomène bu bees. Euh, muy oh. euh, trafic faux billets. Euh, loolu itam am njeexital yu doy waar ci koom-koomu réew yi nga xam ne am na fa Sénégal quand mu fës fi lool euh, doo toog weer boo xam ni déggoo coowal phobie yàggul dara teg nañ ci loxo lu bare bari ci ci xaalis loola itam lan la mën a yàq ci koom-koom mu mel ni sunu bos. ñooñu dafa am ñu bëgg xaalis bu yomb. Mm. mais kooku état bi aussi comme ni ma ko waxee rek gouvernance euh, rigoureuse mhm. di contrôle am na ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey mhm. di ko contrôle ba pare nag du daan yu métti bu métti bu leen jàpp mhm. parce que loolu bi mu mën a yàq ci réew bu bare moo gën a garaaw sax mbas mi gis nga pour de pour pour ma benn affaire France ba muy jóge Guinée en cinquante huit waaw xëy na sax yow dégg ko loolu dégg nañ ko noonu lañ defoon économie bi dañ fa sànni xaalis bu bëree bëri ba bëri. ci faux billet. ay ay ci faux billet yàq bi. effectivement. Euh, kooku moom baaxul baaxul ba baaxul ci réew. Mm-hmm. kooku moom a ragal ay mbas yëpp. ay mbas ak yooya. bu mm-hmm. am na itam ñuy joxoñ baaraamu tuuma trafic yoo xam ni dana koy def ak France ni ki noonu euh, dirigeant yu France yaakaar naa ne foofu moom kilifa yiy jiitee ci boppam la ñuy la ñuy wax euh, xëy na ñuy jël xaalis di rawaleeg yu ni mel. c'est-à-dire comprendre ay trafic yoo xam ne dañu koy def ci ci wàllu xaalis euh, foofa ma ne euh, kilifa yi na lañu ciy joxoñ baaraamu tuuma euh, muy ay trafic yoo xam ne itam mën na am njeexital ak ci koom-koomu réew mi. kooku mënul ñàkk xëy na mais xam nga ne kooku moom il faut nga am ci preuve. waaw waaw parce que daa daan daa daanañ koy wax ay président yu bëri bëri fii ah. Mm-hmm. seen abri bi mm-hmm. mu ñëw mm-hmm. ndax ba léegi mi nga am wala déet. waaw. Mhm. parce que léegi pour yooyu euh, am aussi xaw na metti ndax àddina day dox. Mhm. d'accord mais xëy na nag xëy na nag mënul ñàkk mais man wóoruma amoo ñuy waxtaanee ba tey wàllu koom-koom euh, sukkandiku woon euh, wala jël comme laytaay euh, xew-xew bi nga xam ni ëllëg calcina ji la ko Afrique wala àdduna di fàttaliku muy bi ñuy dévaluer CFA ci oh. cinquante pour cent alors oh. tey ginnaaw dévaluation boobu professeur yaa ngi wax sànq ne Europe lor nañu ak ñëpp ñi nga xam ne seen loxo duggoon na ci trafic d'esclaves beeg yooyu mais est-ce que tamit africains yi amuñu benn part de responsabilité ci ni seen seen koom-koom nasaxee tey ndax euh, yaa ngi wax sànq ci ndorteel gi faw ñu liggéey te fii daanaka liggéey moom defuñu ko dëgg dëgg dëgg euh, ñu la déggee ak itam bu ñu bu ñu xoolee sax li nga xam ni moom mooy xew Afrique euh, liggéey pratiquement taxu ko fee bari noonu liggéey bu sérieux bi tax ñuy wax donc est-ce que ton amuñu responsabilité donc ñun ci tardé bi nga xam ne tardé nañu ko ci wàllu koom-koom ñun africain yi. kooku wax nga dëgg parce que aussi dañu bëgg lu yomb. Mhm. taalibe yi ñu ci taxaw ci mbedd am na sax ñoo xam ne am nañu vingt ans. Hmm. yor bon est-ce que est que loolu normal na. ay magi jëm. waaw nga def gis euh, tooñu ma leen nag mais suñu bokk bàyyi faay. Hmm. ñu ngi yegg seen bool te boo leen gisee ñu ngi seen kattan. Hmm. wér gu yaram am seen doole. duñu liggéey boo demee ci mbedd yi ci grand place yi. ñu ngi taxaw. or que quand nit war nga mën def bu nawet ñëwee. nga dellu ci loo xam ne so xëy euh, bu pare di nga ci mën dund at. parce que parce que nit ñi ne liggéey mooy rek ngay liggéey chaque jour premier janvier ba trente et un décembre. Mm-hmm. am na lu ñuy wax les activités saisonnières. Mm-hmm. gis nga par exemple ñuy jaay ay juillet Noël. mais un mois la liggéey am ci chiffre d'affaires un mm-hmm. nga xam ne été dañuy jaay ay un an. donc am na ñoo xam ne bu nawet bi ñëwee war nañu mën a dem bay wala ñu bay xaal wala ñu bay leneen nangam nangam ci àll bi. Mhm. mais ñëpp bu ñëwee Dakar kooku mënul nekk pour nañu kooku nag état bi moo ko war a organiser wu su pare sévère ci sérieux ci bañ déglu ken mhm. voilà mais mais ici il y a tellement de groupes de pression euh, de de des groupes boo jëlee mesure sax da ngay dellu gannaaw da ngay ragal et cetera nangam nangam. Mhm. waaw loolu nag bu mhm. euh, ci dévaluation CFA boobu ba léegi ginnaaw bi euh, dogal bi siiwee dégg nañu ni ay yëngu-yëngu yu tar amoon na euh, ci réew mi naka la ko askan wi dundee woon booba jamono lan a xewoon juste après annonce dévaluation boobu. dévaluation bi dafa am lu ko jiite woon sur le plan politique. mooy lan. les événements de 88. d' accord. nga xam ne kooku six ans ci ginnaaw la. jeexagul woon kon. waaw donc non ñu doon ko wax jeexagul woon. parce que ah. kooku aussi y avait un contentieux électoral yàlla am na ay coow ci dëkk bi dëkk bi xaw na takk sax. xam nga kooku boo ci tegee euh, ay juróom-benn yooyu rek nga def dévaluation. Mm-hmm. day day fekk nit ñi giifaguñu. voilà xam naa sax Ah, Abdou Diouf loolu taxoon taataakaaru woon bu baax ci dévaluation bi. Mm, ndax contexte bi. voilà donc ah, moo tax la tàmbalee ban contexte la ko defee woon. voilà day ah. indi ay troubles sociaux. Mm-hmm. troubles sociaux yi moom day continuer rek. parce que ku daan am cent mille franc nga yow ne ko cinquante mille franc nga am. Mm-hmm. ku amoon cinquante mille franc nga yow ne ko vingt cinq mille. franc nga am vingt cinq mille lay tekki léegi. te te njëkk boo wàccul. Mm-hmm. kooku moom euh, doo am jàmm foofu. kooku moom doo am jàmm. kon fitna a amoon na fitna a mhm. mais euh, la bonne tenue de l' économie ak góorgóorlu wax dëgg yàlla. Mhm. ba nga xam ne redressé na économie ba ñu a à année deux mille. Mhm. mu dem bàyyi Ablaye Wade continuer. parti socialiste bi nga bokk jamono jooju mu nekkoon ci nguur gi ban rôle la ci joué woon. ah ñun doon gérer ñoo nekkoon ci gouvernement bi. ñoo nekkoon ci ñoo état bi. comme ni nga koy waxee nous nous aux affaires. donc yëpp ñooy témoin ñun ñooy acteurs yi. Mhm. ñooy mais on a pris nos responsabilités et on assume aussi. Mhm. dañuy assumer. Mhm. parce que gis nañu ne quand même ba ñu yeggee ba deux mille économie bi tout était au vert banque mondiale waxoon na ko FMI wax na ko. te Abdoulaye Wade bi mu ñëwee dafa dem France ne man yow pour le xaalis parce que Abdoulaye Abdou Diouf bàyyi na ma xel su bëri bëri. ci kees donc Abdou Diouf en tant technocrate aussi redressé na baar bi. loolu tamit c'est important. jar na souligner mais euh, yooyu nga tudd euh, institution de Bretton Woods yooyu muy euh, FMI Banque mondiale dañuy faral di leen joxañ baaraamu tuuma ci liy naxasal sax koom-koomu Afrique est-ce que ànd nga ci loolu. waaw bu njëkk nag dañu doon imposer yu bare bare. Hmm. mais gan mais mais depuis quinze ans dix ans quinze ans dañuy jël léegi en compte l'aspect social. d'accord de de ils avaient ce qu'on appelle l'ISP instrument de soutien à la politique économique. Mhm. moo nekk gannaaw gi ci jamono instrument de coordination de la politique économique maanaam ñu bu fekkee ne fonds monétaire rek ñoom sax dootuñuy jox xaalis dañuy accompagner rek. Hmm. dañuy encadrer xam nga. Hmm. dañuy accompagner pour ñu bañ a euh, déborder et cetera quoi waaw comme genre agence de notation ak yooyu quoi. Hmm. voilà voilà. notation yi ñuy def parfois lu jëm ci taux de croissance ba yooyu yëpp moom nit ñi dafa mel ni gëmuñu ko lool lool. foofu ah, xam nga nit ñi nag ñoom. nit ñi nag ñoom. mënoo fexe dañu jàpp ne daal ñële moom dimbale wuñ wala ndimbal li tur bi doo nga fi ne mais en réalité amul ndimbal est-ce que mën nga ñu expliquer rôle yooyu les institutions ci ci suñu koom-koom yi. FMI banque mondiale dañuy dañuy dimbali état yi. Ah. pour euh, équilibrer seen balance commerciale. d'accord. seen balance commerciale encadrer leen si ni ñuy seen koom ak seen économie. Mm-hmm. banque mondiale ñoom dañuy leb ne xaalis. Mm-hmm. banque mondiale dañuy lebal état yi dañuy lebal. privé yi te dañu am sax groupe. Mhm. am na financière internationale am na yeneen institution yi nekk ci biir groupe banque mondiale xam nga. Mhm. léegi nag nit ñi am na ñoo xam ne dañu naan ñooñu dimbaluñu euh, pays yu néew doole yi dañ leen di gën a néewal doole. Mhm. ci bor yi xam nga xam nga aussi ça dépend. man je suis un scientifique la. bi ma topp rek waxul nit ñi quoi. waaw parce démb ma demee débat 31 décembre euh, Sen TV non non 2 dañ doon wax affaire piqûre bi. Mhm. ma ne leen mais foog ñu respecter aussi les les scientifiques. Mhm. parce que jamono dox na ba nga xam ne xëy na léegi technologie bi may nañu piqûre boo doon def pendant cinq ans il y a vingt ans. nga ko mhm. def léegi en neuf mois. la voilà aussi xanaa dañu jël ay <laughs> quarante millions de de vaccins trois cent millions. di ko génne te wóor leen ba di ci ci ci li ma yaakaar bokk. ci li ma yaakaar donc léegi aussi institution de protéologie. gis nga leen ñun ñun ñu ñuy accompagner bis bu nekk ngeen lii même tey ci soleil sax bind nañ ci. Mhm. ah ak dégg nga xaaral ma xoolal ko léegi nee nañu le FMI approuve sans débat. Mhm. la deuxième revue du Sénégal. du Sénégal. Mhm. xam nga kooku aussi voilà c'est c'est c'est, c'est intéressant parce que comme comme ni ñu doon waxee ne ñooñu ànduñu ak ñun. mais kon xëy na bi ñu anam ci suñu économie. Ah, sérieux bi ñu a am. ak Euh, pour suñu gouvernance xëy na kon duñ ko am. Mhm. duñ ko si am. xëy na kon yàq-yàq bi dana gën a dëgg la alors tey kenn ku ci nekk ci ñun lan mooy sa responsabilité ci koom-koom bi ndax euh, nit ñi daanaka mbirum koom-koom moom xamuñu ci lu bëri moom daal na pañ soxna yi nduggi comme man euh, mën a fees ci ak loo mën a yóbbu ca marché ba koom-koom tey ban dégg-dégg lañ ci war a am ak ku ci nekk naka nga ci war a dugalee sa loxo ngir mu suqaliku. ku nekk parce que bu ñuy wax produit intérieur brut. Mhm. en réalité c'est la somme des valeurs ajoutées. des, des, des agents économiques. Mmh. entreprise ménage nit ñi individuellement et cetera mm-hmm. et secteur informel. donc ku nekk da war a fas sa nit nga liggéey waaye ñuy wax di ñi ci mbedd par exemple comme comme ñu ak mm-hmm. euh, ñi nga xam ne liggéey ñu te ils des des des bras valides. ils mm-hmm. santé mais ils deviennent un poids pour la société. parce que bu ñu amee cent lu mu bon bon da nga jël vingt pour pour jël leen en charge. Mm-hmm. te ñoom indiwuñu dara ci koom xam nga bëgg wax. Mm-hmm. je ne sais pas si je m'explique bien. leer na. waaw mm-hmm. bu fekkoon nag ñoom ñi ngi dugal seen loxo ci koom bi du nekk cent day gën a bëri nekk cent cinquante. wala deux cent. bu fekkee ne ñun cinquante personnes lañu ñu am cent bu ñu ko séddoo. ak bu eh, ak ak bu ñu amee cent cinquante personnes cent cinquante francs wala deux cent francs. du benn nekk cinquante personnes di ko seetlu doo doo xam. dëgg la voilà donc ku ci nekk boo defee sa takkee seen dëgg liggéey comme je crois que ko mais nag ci kaw aussi ñu yor réew mi ñu quand def rigueur bonne gouvernance des politiques publiques ak di sanctionner ak yooyu yëpp ko ak bala nga ne naam ne fa koo ne xëyal itam day am fu mu xëy emploi bi euh, jafe-jafe la ci Sénégal ñàkkum xëy mi chaque jour mi ngi gën a yokk foofa la responsabilité wu état itam di ñëwee ku def naka sulu noonu def ay faux billets mhm. wala ngay def yenn trafic yi ñu ñu teg daal la doole ñu ñu ñu ñu ci sa ak luubal yi ah, ah, ah. détournement de deniers publics yi ak yooyu yëpp. waaw yëpp yëpp daal dañ ko war a bàyyi. Mhm. parce que parce que kenn du ne amoon am mhm. mais fii la rawee. waaw Afrique mhm. parce que laxisme quoi duñu kii même bu ñu bu sax des instruments de contrôle duñ ko appliquer et cetera. alors ñàkkum xëy mi ban njeexital lay am ci koom-koom euh, maa ngi wax sànq ne loola mooy responsabilité wu état chômage bi moom la ñuy waxtaanee jamono yëpp ndaw yi amuñu xëy mu jaral ñenn ñi xëy na ñuy dem ba bitim réew jaar ci géej gi yaakaar fa xëy na lu tane euh, ñàkkum xëy mooma lu mu mën a wàññi itam koom-koom bu ni bu Sénégal. waaw kooku aussi métti na mooy li ma rek ci ñi nga xam ne liggéeyuñu te ils ont des bras bari dañu nekk un poids pour am na xale boo am quarante ans yaay joo ko mhm. moo koy jox ndékki moo koy jox koy jox reer mhm. xam nga kooku kooku sax c'est un homme frustré. Mhm. Ah, pour rien tout rek avec la proximité. Ah, euh, musiba reyante seen biir et c'est le c'est un devoir de l'État. mu créer les conditions de création d'emploi. même bu fekkee ne état bi sax mënul jox ñëpp xëy. Mhm. mais mu créé condition yoo xam ne secteur privé bi ñu dooleel leen. Mhm. ñooñu xëy na dinañu na a créer emploi. Mhm. Euh, xaalis bi ñu jox xale yi aussi ci ay lu mel ni DER lu mel ni euh, ANPEJ. financement yi ñu ñu gën ko contrôler. d'accord nga gën a xool fi biir dugg ak ndax ñu ngi remboursé ak ndax liñ ko fi ñu war a dugal dugal nañ ko fa aussi. c'est c'est c'est très important. te te nag ñu bañ man man damay def politique. ci nguur gi laa bokk. Mm. mais xaalis boobu ñu bañ ko politiquer. Mm. nga xam ne am am na d'ailleurs dañu ne euh, délégation à l'emploi rapide des jeunes et des femmes donc pour xale yi ndaw la ndaw yi la ak ci jigéen mm-hmm. jigéen ñi am na ñoo xam ne ay salon de machine am na ñoo xam ne yu bari bu nañ ko liggéey. Mm-hmm. et cetera nangat nangat yooyu nag voilà yu mel noonu la a ñaax ñu kii wala ñu defal leen genre coopérative. Mm-hmm. pour ñu boole jéem a mutualiser. seen euh, ressource mm-hmm. am na solo alors euh, professeur euh, xëy na fi ñuy jeexalee mooy PAP 2 bi nga xam ni état bu Sénégal ci président Macky Sall teg na ko muy plan Sénégal émergent mm. boobu projet bu ñu ko doxalee ni mu waree yan coppitee la mën a indi ci suñu koom-koom surtout bànqaas yi nga xam ne nag ñoo ñoo gën a fort lan la ci mën a indi comme coppite yoo xam ne bien sûr yu positif lay nekk yu am njëriñ. waa kooku newoon nañ sax dinañ dem ba fekk avant deux mille trente cinq. Mhm. dinañ am un taux de croissance à deux chiffres. Mhm. xam nga ñun dëkk yi nga xam ne dañu néew doole. Mhm. suñu taux de croissance pour pour mu développer suñu réew. foog mu yegg à deux chiffres. wute na ak réew yi mel ni France nga xam ne ñoom taux de croissance deux pour cent wala trois pour cent rek dañuy def ba fakk. d'accord ndax seen koom toll na foo xam ne doole boo xam ne. bu ci amee yokk boobu rek day rëy. d'accord ñu ko malheureusement nag euh, amoon nañu ay plan yu bari. ak ay programme yu bëri ñu mm-hmm. le PSE dans PAP P2A mais yàlla mooy indi ndogal aussi ak mbas mi mm-hmm. mbas mi yaakaar naa ne xëy na dina am lu mu freiné mais mm-hmm. dañ ñaan ci yàlla mu bañ a freiné yëpp parce que gis naa ni ñaa ngi liggéey ñu ngi continuer reprendre nañu euh, BRT bi xam naa TER bi léegi mu jógaat aussi ak euh, travaux yi ci àll bi PUDC yi ak euh, yooyu daal ñu ngi fi parce mm. que il faut ñu am aussi li ñuy wax capacité de résilience. d'accord résilience luñ ci mën a dégg. Euh, yenn saa dañuy wax ne terme économique yi dafa xaw a technique te askan wi ñuy déglu en général ñu ci bëri seen njàng xëy na demeewul noonu donc dañuy bëgg xam dëgg-dëgg lii mooy lan bu fee ñu approprier wu euh, yooyu les euh, slogan wala programme mooy nga subir mhm. nga contenir nga relancer wu d'accord maanaam foog nga am ndëgërlaay boo xam ne mhm. bu yàqu-yàqu ñëwee di nga ko mën a dékku. Mhm. ak nu mu mënta demee. Mhm. ba pare fexe ba. jogaat jogaat dépassé waat sama tolluwaat. Mhm. d'accord léegi fii ñu toll nii ci mbas mi Sénégal ci lan la war a gën a sukkandiku ngir mën a jógaat ci wàllu koom. fi ñu war a gën a sukkandiku. waaw wax nañu wàllu mbay mi. mais mbay mi taxu kaa demee noonu. fa laa bëggoon dem sax. parce que yàlla may nañu sa loolu lu wax naa ci ci ci interview. Uh-huh. parce que dañu prévoir ak mbas mi. une croissance négative. Mhm. c'est-à-dire décroissance de moins zéro sept. Mhm. mais agriculture bi na ba mbay bi dax na ba suñu croissance dafa positive. Mhm. ñu ngi ci zéro ñu ngi ci plus zéro et quelque je crois. waaw xam kon mbay mi indi na parce que ren quand même mbay mi baax na. waaw tane na waaw waaw daanaka ñu ñaax xale yi ñaax xale yi. bu fekkee ne taw bi baax na ñu dem ci mbay mi ba pare Sénégal am na ay cours d'eau nañ fa investir xaalis yu bëri bëri. pour xale yi mën di fa def maraîchage di fa def yeneen yeneen di ko exporter en France comme comme boo demee ay Kenya. Mhm. dañuy exporter ay ay ay fleurs yu bëri bëri en Europe. Mhm. di exporter ay ay ay pastèques ay melons te loolu xaalis la. Mhm. parce que xale yi bu ñu demee bu ñu demee France ak Espagne. ñu ci bëri bëri ci yooyu la ñuy liggéey de. parce que xam nga loolu. ci yooyu tey ci yooyu la ñuy liggéey ci mbay mi ay ay melons ay pastèques ak ay fleurs yooyu ñun am nañu ndax am nañu suuf. léegi sax am na espagnol yoo xam ne ñu ngi commencé ñëw fii di di loué ay suuf parce que xam nañu ne moo gën a yomb. Mhm. ndox mi gën a yomb. employé employé moo gën a yomb ñu commencé sax di bàyyi di liggéey di ñëw fii di ko def. Mhm. ñun kon boog ñooñu balaa ñooñu di ñëw ñu ñu ñu def foofu. Mhm. Ah. d'accord industrialisation itam euh, Sénégal ak Afrique war nañu cee jóg ndax euh, itam euh, am na yu bari yoo xam ni mënoon nañ di ko transformer fii yóbbu ko bitim réew jaayi ko euh, waaye en général li ñuy importer moo ëpp te recettes yi nga xam ne douane def na ko ren muy 1000 milliards wane na ni li ñu jëlee bitim réew di ko dëggal ci réew mi bari na lool. waaw waaw dëgg dëgg yu bari sax nga wax. Uh-huh. ñun suñu secteur secondaire maanaam mooy industrie bi. Uh-huh. la ñu war a taxawal dëgëral ko. Uh-huh. sauf que lu ñu jëlee ci secteur primaire bi. la ñu koy yóbbu. di koy jaay bitim réew. Mm-hmm. ñu transformé ko fii totalement. Mm-hmm. wala ñu transformé ko en partie. Mm-hmm. ah nga xam ne xale yi dinañu mën a di liggéey tam lool loolu la ñuy wax. industrialisation. léegi bu ko defee ngay jaay France parce que ah. boo jëlee sa matière première ngay yóbbu France yow doo ci am benn valeur ajoutée. te ñoom dañ koy defaraat ba mu baax indi jaay la ko mu gën a cher. moom moom laa la. Mm-hmm. doon am mm-hmm. mm-hmm. da ngay mettre en chômage say ndaw. effectivement di di di liggéeyaloo ay doomu jàmbur. ca ca bitim réew. effectivement recette douane bi loola la wane mille milliards yi. mille milliards yi loolu la wane. dëgg la. <laughs> bon mais mais na état bi xaalis. de toutes les façons. waaw pour mën a def face à ces à moo tax keroog doon naa ci waxtaan ak Boubacar Camara ma mm-hmm. ma ne kooku man war a waroo ko wax. Mm-hmm. yow nekk nga doon. Mm-hmm. tu n'as pas dénoncé au contraire da nga bëggoon a am lu ëpp sax. Ah. mille milliards di def ay recettes waaw. mais doo ñëw ba toog tey nekk politicien di wax loolu. man ko mel ni man économiste bi moom mën naa wax ne c'est une économie extravertie. parce que mille milliards lu mu gën a yokk rek. day wane ne ngi jéggaane bitim réew. waaw. di liggéeyloo kon suñu liggéeyukaay fii ñoo ngi gën a suux waaw très bien mi ah. lay wane rek mhm. mais bu ko defee rek ñu inverser euh, rôle yi gën a comme ni nga ko waxee def mhm. industrialisation mhm. nga xam dañu mën sax di exporter <laughs> renverser situation bi exportation yi gën a ëpp importation yi parce que bi ñu amee indépendance ba léegi le déficit est structurel importation yi ñu ñëw exportation yi Euh, donc la balance de paiement est même déficitaire mmh. de façon structurelle. Mmh. jëf professeur Ousmane Beye yaakaar naa ne euh, wàllu koom-koom tey euh, xam nañ ci lu bari ngir euh, waxtaan wi nga xam ne sëkk nañu ko ak yow ñu ngi lay gërëm bu baax amoon mbégte lool dalal la doon waxtaanee ma fàttali dévaluation bi amoon 11 janvier 1994 ëllëg caltina ji la ñu koy fàttaliku boobale xew-xew nag taxoon na ma signalé ko itam juróomi bakkan daal di ciy root ci yëngu-yëngu yooyu nga xam ni professeur ñu ngi ko doon wax léegi for nañu ci xibaar xam naa ne booba nag moom xàmmeeguñu lu bari waaye daal ci nettali yeeg li ñu jot gis <laughs> bakkan rot nañ ci muy ñeent ñoo xam ne ay takk der lañu woon ak kenn koo xam ne civil la ay gaañu gaañu yu bari itam ay takk der jëlee woon ko ci muy kon jamono yoo xam ne yu métti la woon waaye nee nga mënul ñàkk nag mënul ñàkk ci contexte bu particulier la amoon muy euh, voilà yoo xam ne amoon na ay contentieux électoral ak euh, événement wu mai 68 yi nga xam yooyu yëpp nit ñi 88 autant pour moi nit ci woon euh, daal mi ngi doon wéy ba si jamono boobu euh, ñu ñu ñu amoon dévaluation bi 88 moo nekkoon année blanche bi. Euh, ci Sénégal kon mu nekkoon ay xew-xew yoo xam ne yu yu métti la woon. en tout cas ñu ngi lay gërëm ci fàttaliku gi euh, ñi ko fekkeewul woon xëy na jàngee nañ ci lu bari ñi ko fekkee woon itam fàttaliku nañ ci yu bari professeur Ousmane Beye la ñu doon dalal mu bokk ci parti socialiste nekk itam économiste di ko jàngale ñu ngi lay gërëm professeur di la sant bu baax a baax ci disponibilité bi ak waxtaan wu am solo wi. ok jërëjëf mhm. kon mbokk yi mu nekkoon euh, seen émission démb ak tey ci réew mi FM euh, ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen fàttali émission bi nag mun ngeen ko teewluwaat ci réew mi officiel euh, suñu page ci YouTube gërëm leen ci diglu bi bu baax gërëm jaawu jàll mi woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm.